aouzu billahi samil alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum sama collègue député yi asalaamaaleykum ñaan yàlla ñaanal Sénégal jàmm ñëpp am jàmm ziar nañ ñëpp di sant yàlla nag ak yonent bi di sant waa Sénégal di sant Cheikhul Khadim suñu sëriñ di sant le président Abdoulaye Wade le formateur de formateur le plus grand républicain du Sénégal di sant bu baax ku nu te nekkul ci salle bi di sant suñu candidat le président Karim Meïssa Wade di sant maître Madické Niang ndax tey nekku fi waaye l'histoire m'a donné raison j'ai été révélé au grand public lors du vote de la loi sur le parrainage monsieur le ministre je pense que tey fii honorable député Amadou Dia toog sama doom jee toogoon na fi ma ne ko nous avons des idées et nous les défendons ce parrainage ne doit pas exister au Sénégal jàpp naa ni tey bi nga xamante ne joxaat ngeen loi joxaat ngeen droit joxaat ngeen dëgg bi nga xamante ne tey matuñu woon 15 see lañ daan toog Sénégal yépp di ñu dégg ñuy teg loo xamante ni ñépp a koy dégg jàpp naa ni lii ak cant rek laa ko mën a jàppee moo waral ma yéeg ndax dama ne woon nañ ma retiré waaye damaa ñëw pour sant xam ni listoire m'a donné raison ma jàpp ni nag loolu daf bu amee dafa am fu mu tegu ndaxte nit dangay am coach sa derrière nous avons des côte au groupe parlementaire liberté et démocratie derrière ñu ñu ciy sant ñi nga xamante ne ñoo doon wax ne lii baax na lii baaxul nañ ko doxalee nii nañ ko waxee nii loolu tey moo law ba indi waxtaan bi nga xamante ne mooy le dialogue des peuples yàlla def parti démocratique sénégalais et ses alliés teew ci waxtaan ci ba la ñu doon défendre depuis 2017 ba tey yàlla indi ci solution bu leer nañ parce que ñun xam-xam kese la ñu mën a demee mënuñoo demee neneen boo defee opposition 27 ans gouverner 12 ans nekk un homme de la trempe de Ablaye Wade mënoo juum ci benn waxtaan booy waxtaan. donc je pense que Sénégal tey war na nañu xam ne lii teew lu baax la ci ñëpp parce que ñun dañoo toogoon fee bañ ko. on ne peut pas vouloir une chose et son contraire fee laay toogaat yëkkati sama loxo ne ànd naa ci asalaamaaleykum wa rahmatullah